dafa dal parce que kiñ ko jox koo xam ne ni déjà xam na liggéey xam na liggéey bi mhm. waaw am na beneen boo xamante ne nii nag du romb benn yoon dama la koy laaj directement mhm. hmm, Papa Alé directeur de la RTS qu'est-ce que cela veut dire c'est le sacre du mérite et de la compétence compétence. parce que daaw Papa Alé journaliste la compétence parce que Papa Alé a travaillé dans de grandes chaînes yu nekk fii Papa ça a été l'un des piliers même de sud même ba mu fay nekk bu nekk xale mais Pape Alé am na un rôle extrêmement important bu mu doon jouer au sein de sud ba na mu fa jógee dem de stv bi ñëpp aussi gis nañ Pape Alé ba mu demee lu mu def te il a le sens de l'innovation parce que fu mu mën dem toujours dafay am benn empreinte bu mu fay bàyyi ba mu nekkee sud gis nga empreinte bu mu fa teg ba mu jaaree aussi euh, deux mais waaw surtout avec la revue de presse nga xam ne ça a été bon inspiré nañu bari il est vrai que Ablaye Cissé a été le précurseur dans ce domaine mm-hmm. mais Pape Alé quand même a eu mérite de d'hériter de tout cela ba tey boo gisee bu ñuy wax revue de presse chaque fois les gens pensent à Pape Alé les gens pensent à Ahmed Aïdara les gens pensent aussi surtout aussi à Ablaye Cissé mu nekk aussi vraiment mën naa wax ne ce sont ses compétences mérite la parce que aussi Pape Alé c'est quelqu'un qui s'est beaucoup battu mhm. contre l'ancien régime pas parce que il était du côté des hommes politiques mais parce que moom combat bi mu doon mené mu nekk un combat médiatique un combat surtout démocratique dafa méngoo ak combat bi nga xam ne moom la waa Pastef yi doon def cela ne veut pas dire que il est encarté Pastef mais li mu doon mené dafa am un parallélisme avec ñi nga xamante ne ñoo nekk au sein de Pastef te kaso mm-hmm. delluwaat ci encore kaso mm-hmm. def ci grève de faim ba xaw ci ñàkk bakkanam kooku xam nga ne c'est un degré d'engagement degré de patriotisme boobu mm-hmm. moo tax ma ne loolu aussi tey mérite la après tant d'efforts consentis que Pape Alé ñu nommé ko à la tête de la RDS moo tax foofu dama ne de deux choses un mérite la d'abord et en plus aussi c'est le sacre de la compétence donc sur ce plan-là vraiment je tire mon chapeau à Pape Alé et ñaanal yàlla aussi mission bii nga xamante ne moom la ko les nouvelles autorités dénk vraiment yàlla na ci yàlla en tout cas euh, yan bi yàlla na oyof. mais xam nga ko da ko mos a côtoyé. Pape Alé c'est mon ah, moo tax loolu. Pape c'est Pape c'est. mais soo ma doon defal témoignage si moom bon lan lañ mën a. jàpp Pape Pape non Pape mooy li rek cest à compétence bi engagement bi mu am. Pape sama xarit la. parce que sama xarit la sama mooy nit dañ koy dañ naan xaar ñu laaj ko ñu ko xam. d'abord ku fonk réewam fonk liggéeyam. fonk doomu aadama loolu am na ci Pape Alé du dugg yoonam nekkul te du tooñ kenn Pape Alé même boo gisee sax souvent dañ ko dañ ko daan sollicité ci bari Pape Alé ci site yi fii et cetera comme man sama genre yi nga xam ne mën nañ dem fu ne mais Pape Alé bañ sax ñu ne dafa nekk dans le déséquilibre moo tax mosoo gis ñu invité ko ci benn site moom il gère bien sûr son site mais c'est un journaliste c'est un analyste war na mën a dem ci yeneen ci yeneen kii moi je gère mon journal yor-yor ça ne m'empêche pas de venir Sénégal 7 d'aller ailleurs de la à la dem demaat feneen mais pas ba aller pour bañ sax ñu ne dafa déséquilibré ci li muy def il a préféré toujours gérer son son son Dakar mot bi nga employé moo tax ma poser la question boobu parce que moo bi daf ñu yóbbu ci structure bi ñu ko jox dafa amoon benn cliché bu ñu def ci moom mooy la RTS na RTS télé la boo xamante ni daf fi nekk mooy télévision nationale mais de faire la promotion tout simplement de l'état du régime et pire même du président bi fi nekk actuel donc kon am na rôle bu rëy bu koy xaar kon. effectivement il va a le sens de l'innovation. Pape def télé opposition kon. non non mën na ko bañ a def mën a def sax parce que Pape Alé chaque fois boo gisee euh, télé bu mu dem. Mhm. dafay indi toujours day créer ay émissions yoo xamante nii ay émission yoo xam ne dafay dafay attirer ay nit c'est-à-dire l'attention des Sénégalais c'est-à-dire dafay indi public ce qui veut dire que donc lépp loo xam ne moom indi na ko en terme d'innovation dafay dajeek l'assentiment bien sûr des des des des populations boo tax ma ne tey bu demee RTS aussi pour man déjà il est dans son domaine c'est un journaliste ñam fa fekk ce sont ses confrères am na ñoo xam peut sax ñoom ils sont de la même promo ñenn ñi ñenn ñi ay grand man sama xel daal na parce que je sais que c'est quelqu'un qui a le sens de l'innovation et ce qui est sûr et certain que il s'entendra avec les journalistes de la RTS cela ne l'empêche pas maintenant d'être quand même le directeur qu'on attend de lui c'est-à-dire apporter une touche nouvelle à la RTS faire de sorte que la RTS ne se présente plus comme une télé de propagande Surtout. quand on parle de propagande c'est pas parce que ña fa nekk ñoom ñoo bëgg a def yooyu mhm. mais que koy jiite système la quoi boppam ñoom ñooy dicté loolu journalistes yi au point que ces journalistes là ne peuvent pas faire autre chose. Hmm. ne peuvent pas faire autre chose waaw mu noonu effectivement ils sont obligés jaar ci. Hmm. parce que boo ci boo ci jaarul. gis nga les mises au frigo. ou hmm. soit dañuy suspendre salaire wala ñu dugal la foo xamante ni wala dootoo présenter journal télévision en tout cas dinañ la mettre au frigo de sorte que yow. même soo dee jox sa salaire aussi. c'est-à-dire dafay dem ba dootoo nekkati journaliste. Mhm. parce que journaliste bu ñu koy wax du xaalis bi ngay tirer à la fin du mois. mais c'est-à-dire que c'est la pratique même du métier. Mhm. donc je crois que image yooyu Pape ale fera tout pour mën ko dindi. pour mën ko dindi ba nit ñi xam ne ce n'est pas la télévision du président ce n'est pas la télé du Pastef mais c'est tout simplement la télévision du peuple sénégalais. d'accord que ñëpp gis ci seen bopp que ça soit le pouvoir. que ça soit la société civile que ça soit l'opposition que ça soit ñi nga xam ne ils sont peut-être ni opposition ni ni ni pouvoir mais ku nekk xam ne daal télé bi yow gis nga ci sa bopp voilà sa qu'on attend de Pape te man am naa yàqin na ji bi mhm. Pape fera la mission qu'on attend de lui parce que moi je le am na ci nag ay yoo xamante ni nii ci nomination yi balaa ma fay génn dem feneen mhm. mel ni ay port autonome bu Dakar CDC dégg nañ ko lu bëri ci régime bi passé mu juróon coow dépôt et de consignation Fadilou mhm. moo fa nekk foofu tamit euh, ban CDC la ñu war a mën a xaar ndax CDC joué na rôle bu rëy ci ci ci régime bi bi ñuy waaj dem élection yi euh, nga lii lu mu wane mooy que Dieu est juste Fadilou c'était agent de la CDC bi mu génnee il paraît qu'il a demandé sa réintégration foofu on l'a refusé te teguñu ko ci dara teguñu ko ci dara il n'a pas été jugé kenn condamné wu kenn kii donc je crois que waroon na mën a am ay procédures pour qu'il puisse réintégrer vraiment sa boîte d'origine cela n'a pas été fait gis nga tey li yàlla lay def mm-hmm. moom moom mooy diriger léegi boîte bi nga xamante ne ñoo ko doon bañal ñoo ko doon bañal loolu mm-hmm. je crois que aussi dans mission de la CDC dinañ ko xoolaat faire de sorte que yi fi xewoon bii passé dootu fi xewati mais loolu aussi dafay laaj ay réformes dans les textes même de la de la de la CDC. Mhm. ma jël maintenant la cas du port. Mhm. Waly Diouf Bodian. Mhm. peut-être le grand public ñenn ñi xamuñu ko. mais man man naa wax ne c'est quelqu'un que je connais en terme d'abord de compétence parce que boo gisee depuis un bon moment au niveau de la DGID dañ koy presque moom tamit frigo la nekkoon. depuis presque quatre ans. xëy amul lu muy liggéey et cetera. taxaloon na ko caq bi ci tànk bi. waaw te pourtant Wally son seul péché c'est d'être l'homme de confiance d'Ousmane Sonko. oui on se rappelle bi ñuy toj sax. moom lan la oto Ousmane Sonko. Eh, moom ak moom non c'est l'homme ak ñoo fa nekkoon ci oto bi apparemment kooku c'est l'homme de confiance de Sonko. ko jege ko jege la. nee c'est son homme de confiance donc c'est son son son seul tort moom sax gis nga affaire politique yi nii doo ko dégg sax mu fës si nii. waaw mais c'est quelqu'un qui est très fidèle qui est très loyal à Ousmane Sonko. et je moo tax gis nga jàppoon nañ ko fi bon nit ñi bi ñu waa DGID bi ñu yëngalee kii ñu jël ko takkal ko takkal ko bracelet électronique mais buñ dee wax rek ci jub ci liggéey je crois que voilà un modèle. mais am na tamit ah. beneen beneen bu suscité réaction nag. waaw ah. docteur Cheikh Dieng. Uh-huh. gars yi nee nañ. Uh-huh. fa mu jógee ba egg si fii. allié la. il uh-huh. était de PDS. après mu nekk feppu taw feex yor mouvement am. après mu rejoindre la coalition. boobu nee nañu récompense la. Ah, am déet déedéet du récompense Cheikh c'est un docteur dans en, en la matière Cheikh je crois il a fait ses études en Belgique un docteur dafa jàng cest à li ñu ko jox daf ko mën même su fekkee ne aussi dañuy wax récompense no c'est-à-dire euh, lu mérite la parce que Cheikh moom il a été l'un des premiers à quitter le PDS. parce que dem na beneen instant moo Karim Wade jubóo ñoon attention du c'est pas dernièrement qu'il a créé son mouvement là déedéet loolu je crois ça date depuis les élections législatives xaw ma locales. Mhm. ci la am problème ak ñoom mu dem ber daa euh, ber ber yoonam. Mhm. bi mu waxee ne moom dafay euh, bokk ci élection présidentielle yi finalement je crois il n'a pas été retenu immédiatement il a dit que bon le camp du changement c'est le Pastef. Mhm. c'est tout. comme Abdourahmane Diouf l'a fait. donc je crois que tey ci même posture bi ñu ba euh, bi ñu nommé Abdourahmane Diouf moom ci posture boobu aussi lañ ko jox un un de direction tout simplement donc Cheikh du loo xam ne dañ ko neexale déedéet. Cheikh fañ ko teg da ko mérité te da koo xam aussi lu mu jàng la. Mhm. donc il faut que aussi les gens vraiment di di xool termes yi nga xam moom la ñuy. utiliser noonu lañ ko waxee donc non du récompense mérite la. d'accord mérite la encore compétence la comme je l'ai dit à propos de Pape te man ñi ma ci xam yëpp. ñoom ñëpp mérite la compétence la. mais mais mais foofu pourquoi ñu poser cette question. mooy ah. dañ doon wax appel à à à candidature. Mhm. ak mhm. appel d'offre pour certaines. ah haute fonction comme niñ ko tuddee quoi boo keroog ma la ko doon laaj naan lan mooy haute fonction mm-hmm. donc qu'en euh, est ci loolu ak yan way xëy na yi nekkuñu woon haute fonction lan mooy haute fonction dañuy revenir ci question non xam nga ñoom ils ont d'abord leurs critères de définition à propos de ces hautes fonctions je crois ñoom dañu gën a mais ce ne pas dans l'absolu que la ñu waxoon ne post yëpp dañ ko def appel à candidature mm-hmm. déedéet mm-hmm. am na joo xamante ni ñoom constitutionnellement il le président a les pouvoirs parce que loolu aussi faveur la bu ñu war a indi c'est tout simplement dans dans l'objectif de la transparence il faut ñu ñu xam ah. loolu la mais régime bi soo xoolee ni ñuy doxalee ba ba léegi mais ñi jël yëpp ce ne sont pas des gens de Pastef ñi ñi nekk ci gouvernement bi am na ak ñi nekk ci direction yi ce ne sont pas des gens de Pastef c'est-à-dire pour wane ne que réew mi du Pastef rek ñoo ko moom réew mi am na ñeneen ñoo xam ne ni ñi am seen compétence war a mën a bokk ci ñi nga xam ñooy tabax réew mm-hmm. la preuve l'actuel secrétaire général de la présidence il était avec le président Macky Sall mhm. pourtant bañ ñëwee ñoom dañ ko confirmer mhm. man day xam naa ne Sénégal ñàkkul ñoo xam ne war nañ mën a jël poste mhm. mais ñoom jàpp nañ ne ki fi nekkoon ki fi nekkoon baax na liggéeyam mucc na ay kii déjà xam na liggéey bi te liggéeyam set na ñoom ñu jàpp ne kii kon jarul ñu koy génne nañ ko fi bàyyi et pourtant on aurait pu dire que moom Macky Sall la àndaloon am nañu sax ñu doon wax ne woy salbulo yi Macky Sall doon def moom da ci daan ànd ak et mm-hmm. mais xam nga les nouvelles autorités di ko d' abord kii lan la def ak lan la deful loo xamante ni ndax mérite na toog ci poste bi wala mérité wul toog ci poste bi. Mm-hmm. donc il faut que aussi nit li ñuy wax quand on dit appel à man jàpp naa ne par yenn post yi nga xamante ne. te loolu peut être loolu li may wax man man la engagé. Mhm. ñu ne par exemple trésor public. Mhm. ñu ne wala ñu ne DGID. ñu ne post yooyu mën nañ ne mën nañ def appel ak candidature su boobaa parce que ça ne requiert pas des profils des profils politiques. Mhm. et c' des profils purement techniques. d' accord pure technique donc. pour man jàpp naa ne am na ci yenn yoo xam ne mën nañ def appel ak candidature pour wane ne bii Sénégal yëpp ku ci nekk ak say compétence war nga mën ci dem en compétition. Mhm. mais que nag dans la l'absolu que poste yëpp dañ koy def déedéet man jàpp naa ne aussi loolu même suñ ko waxoon aussi faveur la rek faveur la mais du loo xamee ni dañ ko def dans la constitution parce que constitution li ñuy wax leer na c'est le président qui nom aux emplois civils et militaires. président bi moo ah. yeeyoo. daal di ah. tabb ku ko soob ku ko soob. d'accord heure bu ko neexee ak fu mu ko neexee. mais mais maa ngi gis démb xëy na bi <laughs> loo xam ne ni bi mu génne